رسول الله إليكم بيلا لأجبو دايلا أجبو دايلا أيا مصر الإنس والجن إني رسول الله إليكم بيلا لكلالين دالم يولدم بيلا لكلالين kaay leen dikk leen alhamdulilah gam bàyyi laa ni alhamdulilah ladi lam yazal alhamdulilah ladi lam yazal alhamdulilah ladi lam yazal ذلك لولين كايلين لولين دكولين دا الأمر الأعظم أمر أمر واي أمر ما ديك فريارم نجاما نار بجولنو كون إمساكو سيدي ذاك اليوم يا في مهل ترك آية شرب ولا يا كلام سيرنا الإمام لا لك دونانة إن ذاك سيدي ذاك اليوم يا فايما لترك laa yaa yonent bi lu yàlla bind yaa si gan laa ilaaha illallah alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulullah Guédiawaye info jaageen jëf ñoo ngi kontaan ci teewaay bi di leen euh, wax ay baat yu gàtt rek ci solos li tax ñu taxawal euh, programme bi nekkoon euh, diggante démb ak tay démb ñu defoon consultation gratuite jagleel askan wi consultation boo xam ne macha allah ñu bari consulté wu nañ ci xam seen jàngoro te fay ñu dara mu nekk rol boo xam ne vraiment dimbalante la ci diina. Eh, tay di di dimanche bi gis ngeen ko ni ci lañuy amal eh, conférence religieuse bi eh, di ci fessel wotep sayyidina limamullah al mahdi di wadjal 139e appel de sayyidina limam al mahdi sallallahu alayhi wa sallam comme niko wala fa waxe ni lu yag deug la fokk na ni wote bo xamni amna 139 ans kuko don sikisaka war nga bàyyi xel nak te xamni li lii mbiri yàlla la mbiri yàlla la ala kulli alin loolu moy sansu ñu amal bis bi pour di xamal jaam yàlla yi rek ne len ah wote bi day delu setina la sayyidina imam alayhi salaam taxawon wax ni ajibu daaya allah al insu wal jinn inni rasulullah ilaykum mom lañuy fadali ni ala kulli alin loolu lañuy fadali kon loolu moy sansu bis bi ñu bokk ko nak ak macha allah waa daayira géejawaay yëpp laayeenu géejawaay yi ñoo taxawal jataay bii nii kon bu ko defee euh, ci gàttal foog naa ni loolu moom ay kàddu la yu mënul woon a rot ñu ñàkkul woon mën a rot jëm si si ngir ngeen xam lan mooy sababu ñu taxawal bis bi. je m'appelle Sidi Seye coordonnateur de l'avant-première de l'appel Seydina Limamoulaye à Guédiawaye Euh, comme chaque année, dans le cadre de la préparation de l'appel de Sayyidina Imam El Mahdi le Daïra Guédiouaï organise euh, une journée de consultation médicale et une conférence religieuse, religieuse en prélude à la à l'appel de Sayyidina Imam Donc cette année, le thème qui a été choisi est l'islam, religion de paix et de tolérance. Donc hier, nous avons mené euh, une consultation médicale gratuite euh, par rapport à la dépistage du cancer du col de l'utérus, par rapport au dépistage voilà, du cancer du col de l'utérus, et euh, une consultation générale. Et par rapport à cela, la population a répondu à cet appel. Et nous avons eu aussi le soutien de de l'âme et de la Croix-Rouge euh, locale de Cameroun. Donc euh, cette journée a été bien préparée et actuellement, euh, comme vous le voyez derrière nous, c'est la conférence religieuse qui doit se tenir et vraiment toute la population de Guédioua a répondu massivement à cet appel et nous leur en remercions. Donc ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que c'est qu'une telle préparation n'est pas facile. Donc on a eu le soutien de quelques bienfaiteurs, euh, notamment une personne qu'on ne peut pas euh, nous empêcher de citer, c'est bien, sûr M. Abdoulaye qui fait partie du cabinet du maire de Yarem Donc actuellement c'est le marabout qui est en train d'arriver. Donc nous allons l'accueillir et